ci ñi wër complot boobu mu yàgg di wax. Hmm. am na solo boo ci am ci loolu. Hmm. donc suñu accepté dem rek du bari dana euh, euh, kii loxo dana dem gémmiñ parce que li muy wax ci complot ñi ko séq. Hmm. ay kilifa lañu. te dañoo xaw a bari. te kun la ci wax rek yow sa bopp dina ni euh, comment. Mm. en tout cas ñi ñu ma dégg mu cité fii man dama toog a sama xalaat man mais li ñii ñëpp. pour lii rek. Mm. waaw ak lu tax lu waral lii ñu accepté ko di ko def. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp booy seetlu ak ni mu ko tënkee ci kii bi dañu mel ni ñoo xam ne ni dafa am fu ñu leen doon xaar. Mm-hmm. ñu wàcc feneen. wala nga séntu nit wàcc euh, war a wàcc ci berlin mhm. dem jël mbaam wàcc ci ko wàcc wàcc wàcc waaw wàcc ci mbaam d'accord <laughs> donc xam nga yooyu mm. day ëlëmtoo koo xam ne nii xelam nanguwul yooyu man li ma gis ak complot bi am vraiment dafa tuutil ñi nga xam ni nii mm. ñoom ñoo seq complot bi te mu cité seen tur ñoom ñëpp mënuma leen retenir sinon je les aurais cités. accord ah. yaakaar naa loolu am na solo bu baax mais papa gis nañ euh, Juan Branco nekk avocat Ousmane Sonko naam mu porté woon plainte CPI euh, gis nga Sénégal aussi def benn euh, am mandat d'arrêt bi ci moom boo xamante ni gis nañ mu ne. Euh, ñu ngi koy kii euh, toppeek yu demee noonu naam gis nañ Ousmane songo def benn sorte ne day déggante Juan Branco ba des fois da koy laaj ay élément ci yu demee noonu euh, naam Juan Branco ne lépp li nga xamante ni xew na Sénégal Macron moo ko digal Macky Sall ndax nga ko gisee sorti bi nga xamante ni Juan Branco def na ko. <clears throat> xam nga moom il est français Euh, je crois qu'il a une partie espagnole. Mm-hmm. ak euh, français. Mm-hmm. nest mm-hmm. mais moom moo ñu gën a xam foofu seen réew. su demee ba wax loolu rek am na fu mu sukkandiku. te nag nañ def attention bu baax ci Juan Branco jarut a xeeb. Mm. Ah, waaw xep a xeeb. mais nañ ko de parce que ñu bari ñu ngi naan dossier boobu dañ ko rejeté teeg yu demee noonu. mani waaw. nañ laaj Kylian Mbappé. Kylian Mbappé joueur. français. di am problème ak Real entre Real ak Paris saint Real xam nga kan la jël. Hmm. Fran Juan Branco. ah waaw. Real Madrid ci problème mu. maa ni problème mu Kylian Mbappé ak Real Madrid. Hmm. waaw donc suñ demee ba def loolu rek. Hmm. am na lu tax te am na fuñ ko wéer. d'accord donc l'affaire n'est pas une affaire assez suñ ko fa tegee rek daañu réer. dañoo mel ko xaw a minimiser Juan Branco. loolu nag moo warul. loo xam ne nii kilifa yu mag ñoo koy soxla pour mu plaider leen. Mhm. faut faire attention parce que fa muy jaar moo tax. moom déjà c'est quelqu'un boo xam ne nii il réunit tout ce qui est preuve balaa muy dugg ci. ci aspect juridique bi dëggantaan. Mhm. daf koy étudier pas à pas s'il le faut même appuyer par des vidéos et consorts. Mhm. pour mu gën am au moins bu yeggee ci plaidoirie bi. Mhm. mu mën a am dëgg. Mhm. waaw. d'accord loo xam ni élément la bu ko bu ko utiliser du euh, du def lu mooy densifier le, le dossier. Mhm. donc euh, il l'utilise. d'accord sans détour. te dara safu ko ci mu bëgg a def daf ci taxaw ak Pastef ak dogute. waaw. d'accord te aussi am nga yaakaar que mu am ndam ci li nga xamante ni mi ngi ci. ah euh, bu wekkoo fi mu wekkoo. Hmm. dañuy seetaan dàq ci ndaje waaye fa muy mujj du neex de. Hmm. waaw waaw. d'accord yaakaar naa loolu am na solo dañuy dikkaat ci Mame Mbaye Niang. Mhm. ak ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko. naam recours am na ci ay avocats Ousmane Sonko donc di xaar trente jours yoo xamante ne pour ñee mën a euh, répondre. pour ñu euh, attewaat wala boog ñu xoolaat ci diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Mame Mbaye Niang bañ jàngat nga am ci avocat Ousmane Sonko. dafa di bu jeexagul. bu jeexagul. waaw ah, xam nga li ñu tuddee atte mooy. déglu mm-hmm. les deux parties. Mm-hmm. mais benn boor rek a wax. Mm-hmm. ay avocat am ñoo teew. bi ñu waxee ba pare laaj ko mu wax la mu wax. mais bés bu ñu dégloo partie 2 bi. Hmm. nga xam ni ça concerne Ousmane. Hmm. en ce la nit ñi di wax di soog a mën a wax. Hmm. pourquoi parce que àtte euh, du benn pàcc rek. ñaari pàcc yëpp ngay déglu. waaw te Ousmane du tiiñal nit mu te amu ci preuve. waaw ci xam ci moom. du tiiñal nit te amu ci preuve. est-ce tamit am ngeen yaakaar que euh, ay avocat wu Mame Mbaye àddu. ci li nga xamante ni moom mooy ci ay avocat wu Ousmane Sonko bi nga xamante ni def nañ ko. waaw xam nga jéng dafa am fenn. dafa am jéng. waaw. Hmm. man ci li ma seetlu. Hmm. dafa am jéng fenn. Hmm. jéng boobu nag loo koy mën bitter yi wala wëlbati mooy jéng boo xam ni nii boo duwee bagaan bi mu fees dell. di nga am fooy sotti bagaan bi. bu fekkee ni ci bërigo la hmm. mu fees bu mën laa jëriñ hmm. bu fekkee ni doonul ci bërigo du mooy da nga ko sotti noonu rek hmm. ci bagaan bu ni mel moom day tolloo day nivelé d'accord waaye doo xam ci peese lu diis parce que li nga def ci biir rek moom la lii soloon waaye nag dafa lekk ay euh, mbir yoo xam ne loox mbóor yi nekk ci suuf <laughs> te man sax <laughs> benn question. Hmm. ki njëkk a wax loolu tuumal ko. Hmm. mooy xaw ma journaliste rek xaw ma kan te bindoon affaire yi. Hmm. ba ni dossier bi mu ngi euh, justice ak yooyu kooku li tax porté wuñ ko plainte lu mooy ñu dem directement seeti Ousmane. est nekkul Ousmane mooy Ousmane parce que man mi wax ak Ousmane ak journaliste yi wax du doon benn. waaw mais gis nga at. day doon dëgg. waaw bu doonu dëgg rek. Hmm. am na suuxlu bi nekk ci suuf. te loolu lay gën a nuru. Hmm. parce que hmm. boo gisee niñ ko taxañee sax. daal di indiwaat beneen procès teg ko. bu mel ni genre pression buñ ko teg pour lii pour laa pour kii foo ko mën a xalaat ngir teg ko rek. pour nasaxal Ousmane loolu lay gën a nuru que d' accord euh, yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax mais nee naa la à chaque fois damay am mbégte di la dalal mais papa fu ñuy duggaatee naam euh, gis nañ Macky Sall def discours ne du bokk naam ñuy xaar kan la war a mun a samp ci diggante boobu ñu gis seen chaise ñu gis fa Amadou baax ak nga xamante moom mooy euh, Diouf Sarr seen partisans yi dafa nekk fa di xeex di sànnante ay banc yu demee noonu. bi nga seetaanee vidéo boobu ndax nga ko dundee. waaw xam nga man nekkoon na directeur rajo Jàppo FM. Jàppo FM. Mhm. waaw donc euh, jotoon naa xam tuuti. Mhm. ci Lamine Ba. Lamine Ba. bon Diouf Sarr moom jëflante bu ndawoo. Mhm. ñaari yoon. lañ def quoi te kenn ku nekk jot naa am lecture ci sa personnalité. waaw ah, man jote bi sax xaw na maa jaaxal parce que daal. koo ci natt. wees na dayoom wees na lool wees na joteeg euh, sa moroomam. xam nga euh, appair franchement en toute sincérité. jeu bi ñu nekkee arrangé wu danga da nga yaakaar dañuy jouer. bu baax. bu doon film la.